muharram weeru koor ci guddi fukkeel bi ak ñeent macha allah muy juróom benn rakka rakka bu nekk fatiha benn yoon isaa jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon qul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon soo paree nga jël sa kurus incha nga nga jël sa kurus nga def astaghfirullah astaghfirullaha astaghfirullaha téeméeri yoon foofu place kaay la nga ne di bëri na lool neen képp koo xam ne julli nga julli googu mel nga ne ku seet junni ñu feebar mel nga ne ku aji makk junni yoon mel nga ne ku umra junni yoon mel nga ne wër kaaba ga mel nga ne koo xamante ni bii bis bu set nga wër kaaba ga tawaaf nga ne di bëri na lool masha Allah jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Dunya Production Late the